al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak li téye ci islam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ji maa ngi nuyoo tey ziar di ko teg ci loxol sëriñ xaadim ak sëriñ xabbaan di wax ne yàlla na yàlla nangu ñaan yépp yàlla na nu ko yàlla boole mbokk mi laaj nee na ku am ñaari soxna kenn ci nag bi muy sëy si amul indiwaale wut ay yére yu doy muy borom këram def nag léeg-léeg mu yebal ko ci barab mu jël fa ay yére waaye day wax ne yaay mag ko jox ngir xëy na bañ ki keneen ki jàpp ne da koy xottil bàyyi ko muy laaj atteb loolu waaw wax ne yaay mag ko jox te jox ko ko di daganut nax loolu wax lu amul la te ab du def loolu amma xottil ko ay yére li ñu santaane ci lislaam mooy li war jullit bi ci soxnaam mooy mu xottil ko ci at mi ñaari mbubb mbubb mu koy fegal ab sedd ak mbubbum tàngoor mbubb moo xam ne bu sedd bi dikkee bu ko solee dana mën a dana ko mën a musal ci sedd bi ak mbubb moo xam ne bu tàngoor bi dikkee dana ko mën a sol ci ñaari mbubb yooyu mooy li war boroom kër ci soxnaam ci at mi saa bu ci aajowoo benn ci yooyu mu wutal ko loolu mooy li nga xam ne mooy farata nit ki nag su defee lii farata ba noppi nekk leneen luñ ca dolli ngir yeneen yu ko waral loola lislaam terewu ko ndax lislaam waxut ne nañ yemale nit ñi waaye nañu maandu ci seen diggante lay wax lislaam maandu la santaane maandu nag mooy nga jox ku ne àqam bu amee nag koo xam ne am na illa ju tax nga dolli ko leneen ginnaaw boo matalee te si àqam loolu duñ ko jàppee ak tooñ duñ ko jàppee it ak jeng wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ci xutba ajuma buñ koy tekki ci aw làkk ngir ne ña fa nekk dégguñu arab waaye barab ba nag nee na fa nekk lakkuñu ne lakk ñu ay séeréer lañ ñu ay pël lañ xëy nañu ay wolof suba nu ñuy def mooy nañu xool ñu ëpp lakk wa nga xam ne ñu ëpp ca barab ba dégg nañ ko buñ koy tekki ñu tekki ko ci làkk woowu wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku doon jiite nee na julli benn raka toog am keneen ku ñëw wuutu ko àggale julli ga waaye nee na kooka nag ba mu sëlmalee dafa sujjóot ba'da salaam muy laaj àtteeg sujjóot boobu waaw bu fekkee ne imaam la te xam na ne daa daf luy waral sujjóot de kon war naa sujjóot waaye wuutu ilimaan rek rek moom du waral sujjóot waaye xëy na nag moom daf na ci biir julli gi loo xam ne xam na ne sujjóot war na ci ndax maa moom dañ ko sant bu ilimaanam sujjóotee na sujjóot donte xamul la tax ilimaan di sujjóot bu ko jaaxalee ne mën na koo laaj waaye eh, du ne doon gi wuutu gi mu wuutu ilimaan rek rek moom taxut muy sujjoot xëy na ñàkkut mu daf mu yokk ci julli gi lu waral mu sujjoot ba'da salaam wallahu taala alam bokk mi laaj lu tax ñuy yelu tisbaar ak takkusaan di béral julli yi ci des waaw ndax noonu la ko borom bi subhanahu wa taala digle kii yàlla yónni woon sant ko muy julli tisbaar ñeenti rakka takkusaan ñeenti rakka timis ñett gee ñeent suba ñaar moo ko sant tisbaar ak takkusaan ñu di ko yàllu njàng mi ak gee ak suba ñu béral ko ak yeneen julli yi nga xam ne ajjuma ak it ak yi ñuy béral kon noonu la ñëwee ndigal li noonu lañ ci jote du nag borom xam-xam ci génne ay xikma yu ñu jàpp ne moo tax ay ndigal la daal ñi wax ne am na xikma bu tax mooy dañuy wax ne guddi dafa dal ak dal dafa dégg nit ki di béral xolam di gën feex mu man di am bànneexu ci diyaale ak boromam bëccëg nag nga xam ne dalut tax ñu santaane ci yabu am yox la waaye ci dëgg-dëgg dal borom bi subhanahu wa taala santaane julli wutal ko ay waxtu wutal ko ay lim ak nu muy toll moo santaane yi nañ ko yalu yi nañ ko bëral wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax pepp muy door ñor mënees na ko jënd denc ko yàgg njoor koo jaay waaw mënees na ko jënd denc ko buñ ca jubluwut lor nit ñi nga xam ne daal topp daa bari nga jënd ci ab lim mu ci ngir am yaakaar ne bu nee ba ca kanam mën naa gën a néew bu baa jég gi mën naa yéeg nga génne ko jaay ko li ñu bañ daal nga jublu xatal dundu nit ñi ba tax nga def ko bu fekkee nag loolu taxut dara da nekk ci jënd ngir mu yomb jamono yi mu yomb bari denc ko bu jamono xate ba mu gën a néew nga génne ko jaay ko wallahu taala mbokk mi laaj nee na njëkk sëriñ bi di dem ci tukkib géej gi tubaab yi fi nekkoon ak wóori adduna yi fi nekkoon nan lañ doon dundee ak waa senegaal waaw loolu day ci tënk mooy tubaab bi mu ñëwee fekk fi wóor yi ne fi yoroon réew mi di doxal ni leen neexee dañu ñëw nu dox ci nungu ko ci ñoom ñenn ñi ñu faagagal leen rey leen ñenn ñi ñu jël leen ñu nekkal leen fi ci dig tënk noonu la ñii nangu nekkal tubaab bi di dox ci seeni waaw ñu téye leen fal leen ñu lànk loolu ñu rey leen loolu mooy li fi amoon moom tubaab bi ci loolu demee ba far not ñëpp ba mu juróom mi lépp na ci loxoom ñu doon bañ ñoom la doon xeexal di wërwër loolu ñoom ba mujj jàkku ñëpp wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na daa dégg ko wax ne fekk na ci téere ahlu sunna wal jamaa ñu wax ne aaya bi wax raj mu ak euh, ku nampal mag fukki yoon dalay araam nee na bi fi am salaam génnee génnee àdduna ci nekk soxna Aysa aw bëy moo fa dugg lekk aaya jooja loolu dama koy door a dégg man bi ci des it nag nekk soxna Aysa moom alxuraan ab kaamil nekk fa woon ba ñu ba aw bëy du fa dugg di lekk aaya loolu moom jàpp naa ne du wax ju am benn wéeruwaay bu dëgër aayatul raj moom xam nañ li aaya xam la yu ñu man suuxal la ci lu ñu xam ni ki yeneen aaya yoo xam ne sax naa ne lañ koo nasaxal te yàlla wax na ci alxuraan ne nasxu moom birama euh, mooy atte dara yàgg mu dindi ko teg beneen atte euh, loolu moo ci am maa wax ne ubbeye ko lekk ndax aay yi doon wàcc ci alxuraan aw bëy lekk ko wala leen lekk ko du tax mu fàddu ndax ñi ba mu wàcc ñi bare nga fa woon di ko mokkal ñeneen di ko mokkal kon nekkul nit benn barab bi ci des nag barab boobu ñu wax doonutoon fu ñu fu ñu wax ne fa lañ doon denc alxuraan ba bu fa bëy lekk bu ko bëy lekkee wala leneen lekk ko dootu nekkati wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na daa bëgg ku ko tekkil bayt bi yaquudu lii wala yaquudu min nii illa liman shitu bi idnin min nii waaw yaquudu dina womat lii ñaan ma xëy na lii dese leer ci bayit yu nag xëy na ku gisoon la ko jiitu mbaa la ko top na ko ci mën a xamee mooy yaquudu fi'al la ki ko def kan mooy faa'il bi leeru ci maf'uul mi it leeru ci kon wax ne nangam lay tekki moom du yomb te xamuñ la ko jiitu ak la ko topp xëy na bu loola ñëwoon mën naa am mu gën a leer eh, dina dina dina wommat ñeel ma waaye du wommat jëlee ci man ndare koo xam ne soob na ma ci sama ndigal baa di ca kaw lay teg waaye ngir xam nag maanaam wax moom faaw dañuy xam la ko jiit ak la ko topp fi'al it ñu xam faaxil bi kan la waaye mafool bi ñu xam lu mu ko mu doon wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku doon julli bim sëlmalee nee na doon jiite mel na kuy deng-dengi nee na mu laaj ko ne ko xanaa daa mu ne ko waaw mu daal di jóg àggale beneen rakka su ñu laaj ndax julli bu baax na wala baaxul waaw bu fekkee ne moom de bi muy sëlmal da doon deng deng ndax wax ji loolu lay nuru day nuru ku doon deng deng ndax mat na wala matut loolu nag daganut moom kuy deng deng ci sikk sàkk mat na wala matut boo sëlmalee julli gi day yàqu bu fekkee loolu amu ci nag ndax jàppoon ne julli gi mat na bi mu sëlmalee gis jëf ju tax mu jàpp ne kii daal daa am lu muy laaj waaw wax jooju mu wax nga xam ne ngir dafa julli gi Euh, du yàq julli ga wax ja bariwut bu fekkee baat boobu dong la euh, ndax daa moytu lu mu ne ko déedéet mu jóg àggale su boobaa julli ga du yàqu incha allah waaye bu fekkee nag li muy sërmal moom mi ngi doon sikki te loolu lay nuru ndax li tax kee deng deng rek mu ne ko xanaa ndax daa matut loolu dañ ciy dégg ne mën naa am na ngi doon mi ngi bi muy sëlmal mi ngi nattable bu fekkee noonu la demee nag julli gi day yàqu moom allahu taala alam mbokk mi laaj nee na góor gu jaxasoo ak doomam ju jigéen ndax sëyub ndey ndey xale bu jigéen ba day wéy ba tey wala day tas loolu da ñaawteef yu rëy rëy la waaye nag lu xaraam du xaraamal lu daga noonu jaxasoo googu mu jaxasoo ak doom lu xaraam la bu fekkee sëy ba ba mu doon sëy ak ndeyam nag sëy bu tegu ci yoon la woon te luy waral sëy ba dañ jaaru fa muy fasewu ko kon sëy ba loolu du ko tas mooy yàlla gi mooy yàlla ak doomam du tax ngi ne sëy ba tas na moom wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na lan mooy waqfu ak lan mooy hadiya waqfu de alal ju ñuy joxe ci yoonu yàlla la nga xam ne nit ki eh, alal ji day bind wax ne alal ji def naa ko waqfu mooy def naa ko ci yoonu yàlla moom moo ko moom de waaye njariñ la njariñ la nañ koy jëme ci ñam wax mën nañ ko jëme ci ñu ñàkk wala ay daara wala lu mu wax rek ki lu baax loo xam ne euh, mën na ko doon lu mel ni jàkk masalan tey nit bu amee suuf tabax fa jàkk loolu waqfu la bu nappee ba nit ñi ku bëgg na ci julli si fu la léegi moomatu ko moom ñëpp ñoo ci am kon dañ koy jaamu yàlla doo sa loo xas nag sañatoo ko jaay sañatoo ko jaay dañ koy wéy di jariñoo ca nanga ko waxee xeetu jaamu yàlla goo xam ne bokk na ci sarax yi fi des nga xam ne ki mën naa faatu lam defoon waqfu bàyyi ko fi moo xam ak kër la moo xam ay tool la moo xam lu baax daal loo xam ne njariñam dafay des nit ñi di ko jariñoo te moom moom cosaan la loolu la ñuy tudde waqfu hadiya nag mooy ak may ak may lay teg ci arab mooy alal jooy jël jox ko nit waaye ak ñakk taxut ndax bu dee ñàkk tax moom sarax lay tudd waaye ki nga ko jox mën naa am aajowowu ko waaye bëgg Euh, dëgëral kóllëre gu ngeen seq wala mbokk gu ngeen seq wala xaritoo moo tax nga di ko jox te loolu yëpp ci lislaam la bokk ci ndigal yàlla santaane ci làmm ñu koy salaam bëgg nit ñi di mayante ay hadiya ndax nee na dana jur ak ab soppante wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na seen tur yi ñu jaay jigéen ñu koy boolee pantalon yi ñuy sol ndax dagan na waaw bu fekkee ni pant pantalon ja da koy sol day te teg ci kawam leneen nga xam ne du feeñ loola euh, sañ na ko amma bu fekkee da koy sol ci anam goo xam ne euh, du teg dara ci kawam loola jaay ko luy tax mu man koo sol ci anam googu dimbalante moom ci bakkaar la te dimbalante ci bakkaar la dëgganut kon bu fekkee na leer na ko ne moom anam gi mu koy solee dëgganut kon jaay ko ko du dagan wallahu mi laaj dafa am ak njaboot gu jigéen waaye nee na téye njaboot gu yëmbul léegi mooy laaj ndax sañ na leen a yóbbu hôpital ñu defal leen planning familial ba ba ñu am borom kër loolu daganut de ndax mooy yombalal leen moo yàlla la mu koy ne leen yar xamal leen lam leen war a xamal loolu la ko yàlla sant teg leen ci yoon jàngal leen yar leen bu ca leen xewee nag moo xam ne loolu kon moom jaanam wàcc na waaye yombalal leen yoonu mooy moom du dagan mukk ci ab ab jullit mu koy def wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku doon ci fajar waaye nee na waxtu wi muy tukki nag mm, dana jiitu fajar jot lu mat waxtu ndax dana sañ julli te waxtu wi jotul mu jiital ko ak ndax bu fekkoonte ne daa ci oto bi ba julli jot te borom oto bi nungu ko may mu taxaw julli ndax dana sañ julli ci oto bi waxtu fajar kenn du ko julli te jotut lu mu jege jege te waxtu jotut rek boo jullee it amuloo julli kon faaw dañuy nekk ba waxtu wi jot ñu doon a julli kon bu départ du tukki ci waxtu woo xam ne fajar jotagut bi fajar du jot fekk mu départ euh, bu fekkee ne mën naa taxaw julli loolu mooy la ko war man ne mën naa taxaw julli bu dee oto yu daw ci kaw yoon moom jàpp naa ne ne ko taxawal mu julli mu lànk moom jàpp naa ne mbir mi du loolu nit ki war na am ci fulla nag ginnaaw bu amoon yeneen soxla bu ko ne taxawal mu taxaw soxla yooyu la muy màgg-màgg jullee ko gën a rëy ndax ndigalu yàlla moo tax yàlla bind jaam ñi kon bu ko jaralee dana taxaw mu julli te loolu nag ba mën na ko ko wax laata ñuy départ mën na ko wax laata ñuy départ euh, bu loolu lépp amul nag wala muy foo xam ne mën mënis faa taxaw bu deen loolu la mu te leer na ko ne waxtu wi balaa àgg fu ñuy mën a taxawee waxtu wi jeex waa nag day julli ci oto bi subaa nag oto bu man a taxaw sëkk si ginnu oto bi jëm rek na toogee noonu lay jullee di junju rukkoo yi ak sujjoo yi da koy junju su boobaa waaye loolu nag bala ko soñ moom fekk ne oto bi mënta taxaw ci genn anam te leer na ko ne it waxtu wi dana jeex takk muxtaar meeg daruri yi te du àgg wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa dëkk ci kër goo xam ne ay wajuram nee ñoo moo ko ñoo ko moomoon mu tabax fa nag waaye fa mu tabax dara néew fa woon waa am na fa nag yeneen tabax yoo xam ne ay waay juróom ñoo ko tabaxoon waaye ay bokkam dëkke ko muy laaj loolu luy atte bi waaw loolu de la ci gën yabal nit ku mën a miraas bu fekkee ko bëgg a miraas mu xool na kër ga bindoo ak tabax yi lu ci nekk mu wax la ci yoon wax daal bu dee suuf soo xam ne ñaf ka faatoo ko moom moom peen ba kaw bu baax dañuy xayma lépp miraas ko kenn ku ne la ci wàllam ñu jox ko ko moom mi nga xam ne nda caa tabax bu fekkee tabax ko ci ndigal ay kilifaam la waaye mayuñ ko suuf sa boobaa suuf sa dañ koy xayma waaye peena moom moo ko moom bu fekkee noonu la demee waaye yu mel nii moom tontu ko ci ab laaj ak lii du yomb ndax yu mel nii faw nit ki teg ci bët xam ni mu lu ci nekk ñu mën koo xayma ña war a doon ñu xam leen ndax bu fekkee ñaari nit ñu faatu lañ ku ci ne am ci ndax bu dee ndeyam ak bàyyam ku ne am lu mu amoon ku ci nekk miraasum boppam la bu fekkee lépp nag seen bàyyi ko moomoon loolu it lu ñu xam la loolu lépp daa leer ngir door mën a wax ne lii nangu mooy atta bi wallahu taala alam